Bougane dugg doon bay génn Bougane dugg doon bay génn. Hmm. te Bougane fu mu teg xam nga par exemple tey boo xoolee PDS xam ñu bàyyi réew quarante 41 pour cent la bàyyi réew mi xam nga ko mu si xool Sénégal yi. Hmm. Ousmane Sonko ba mu demee élection 15 pour cent la am. maa xam nga sa goro Sénégal yi jamono bi ñu toll nii. Hmm. maanaam Bougane dafa yor majaam di ratatité di wax rek waaye Bougane fan la teg mais Bougane Bougane nekkul maire nekkul député par mais Bougane moom mooy kan Bougane mënul yàqal ko bi dara dara dara dara dara dara. donc euh, voilà ñu dugg ci waxtaan bi man euh, benn conseil rek ay conseil sa euh, Sonko mu def attention bu baax ci Khalifa Sall parce que te opposition bi lépp lu ñuy dund te muy souffrance Khalifa Sall moo ñu ko teg parce que dafa ànd ak PDS à la dernière minute mu rocceeku. parce que bu rocceeku loon tey lépp ñun ñoo koy gagné tey ñun ñooy aar moo tax rocceeku boobu muy euh, rocceeku boobu mu def moo tax moom tamit ñam na ci sabab sabab ci ñun waaye sa sàpp ci moom li nga nit nit PDS ku mu jàngul politique doo ko jàngal politique xel xalaatul laay Wade di ali ñëw ci ginnaaw Khalifa Sall wala ci ginnaaw Sonko kooku bu ko defee ñun ñooy jàkkaarloo Fadou wax ak moom ak lu mu koy bëgg bëgg bëgg bëgg danañ ñëw ci buntu kër def grève de la faim nekku ñun ñoo bañ te loolu xel xalaatu ko coalition ñun ba nga xam ne ñi ñun ñoo ngi koy defar ñoo ngi koy togg en douce ñoo ngi koy togg en douce xam nga li ma la bis bu ñu ko yekkee ku nekk dañ ci gis sa bopp te ku nekk dina te ku nekk Sénégalais bu nekk dina apprécier mais yow demooguñu fenn commencé dëbb sol di di di dóori li ñu daal di Sonko il n'a qu'à faire beaucoup attention na xool ñi muy àndal parce que ñi muy àndal ñoo gën a yeewu ci politique ñoo ko jiitu ci politique tey problème bi opposition bi am ñu Khalifa Sall ñu ko def. mais mais soldat. waaw mais jiitu si politique est-ce que tekki na gën a yeewu ci gën a yeewu wala gën a xam. nit mën naa euh, jiitu nit mën naa jiitu xam nga Abdou Khadre uh-huh. ku la jiite jiitu ci daara ëpp la xam-xam. ku la jiitu ci daara. Hmm. ëpp la xam-xam. mais nit mën na laa jàngal oto nga daax koo dawal nag. nit mën naa laa jàngalal. dawal oto nga daw ba nga dem ba dàq ko dawal. man dama lay wax. PDS ku mu jàngul politique doo ko jàng politique. Khalifa Sall moo dàq politique Sonko bi du moroomam. formation socialiste la. du muy politique boobu kii primaire la nekk. nañu waxante dëgg logique sur logique rek. donc il faut que mu def boo gisee PDS daw génn tey jii dem dem xam na lu kenn xamul ne pat jàpp Mor si Ndiambour boole ak dara ak wax. Bougane tamit am na droit tamit bu gisee la nga xam ne tamit vraiment intéressé wu ko mais vraiment tamit am na droit tamit dem dem euh, il faut que nit ñi nangu doon démocrate nag nangu ku nekk sa sa avec sa opinion sa opinion ak sa gis-gis il faut que nit ñi jéem a jéem a jéem a jéem a jéem bu demee foofu nga xam ne gisul gisu fa boppam ah mu mu mu mu mu kat neneen lu mu def dégg comme def ni comme comme ni ngeen def rek kon mu def comme mu def ni ngeen def waaw waaw waaw deuxième thème bi lan la problème inondation yi. waaw de euh, al alarme Macky dafa son dafa sant waa inspection générale d'État. waaw ñu auditeel ko inondation yi 767 milliards yi ñu waxal ko na ko fan lañ ko dugal. mais du Umar Gueye moo fi jëloon rajo yi ne inondation jeex Umar Gueye fi waxoon mais li ma jaaxal nañu audité boobu je suis tout à fait d'accord am na la nga xam ne bu ko président defee dama koy tàcc ñaari loxo. bu defee safaan bi tamit ma dal ci kaw man noonu laay fonctionné audit ci audit bi ni moom seen l' argent continue am sénégalais et am na droit laajte parce que il a mis de l' argent et gisuñu résultat ça dama koy applaudir ça c' est vrai waaye bu audit yi génnee tamit nañ ci def li yoon def mu bañ ci teg ku dem mais machine moteur bi fi inondation yi nekkee ba léegi moto pompe yi ñu doon jënd suuf ana moto yooyu ana moto yooyu moo tax mu wax population yi yéen ñi nekk ci yéen ñi nekk ci ci ndox mi ngir yàlla bu ngeen di joxe seen carte xool leen ñi ngeen koy jox wotu mairie yi xool leen ñi ngeen jox seen carte wotal leen ña nga xam ne dañuy yeew ak yéen yendoog yéen fanaan ak yéen. d'accord. voilà. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. di rafetlu seen liggéey di nuyu Saloum Saloum di nuyu madame Fall Grand Ndiaye. Maram fay mhm. di nuyu mbokki auditeurs yëpp di leen ñaanal jàmm. Mhm. mais sëñ Abdou waaw man de taloo tole tole bi ñu jox sorti sorti euh, kii bi euh, Bougane Gueye mais man moom laa xamul pour lan mais Bougane qu'est-ce qu'il représente sur cette coalition Bougane bu génnee ci coalition mais dañuy sant yàlla parce que Bougane kenn musu ko wóolu sax d'ailleurs moom dafa duggul woon sax bay génn naka ngay mën a signé ay réserve man ba mu signé ay ak réserve laa ne woon gars yi dañ ko war a dàq ci àll bi ba mu ne signé ay dañ ko daan signé ma normal mënoo ko nga génn ci mais une coalition de vingt trois partis ak euh, euh, nu mu tuddati ak. ay euh, mouvement partis ak mouvement. Mm. waaw mais benn waay bu ci génnee lan lay wàññi te attention de ñeneen mën nañu génnaat de dafa am benn bis Ablaye Wade dafa doon wax jamono yi bi mu nekk ci opposition yor parti am te parti socialiste doon foqati ay ay ay ay ay député ak ay ay ay ay militants de premier rang. xam nga bi muy bi muy bi muy bi muy avant muy avant muy ex au pouvoir xam nga euh, kii euh, Jean Paul Diaz. waaw PDS la nekkoon mu jënd dem parti socialiste. Ousmane Ngom PDS la nekkoon mu jënd dem parti socialiste. Euh, troisième bi kan la. non parti socialiste parti non parti socialiste mujj dem PDS Ousmane Ngom. non dafa jógee PDS dem parti socialiste nekk ministre de ministre de de de la santé. ah jóge fa ñëwaat. bi Abdoulaye Wade bi bi Abdoulaye da jël pouvoir boobu il était le ministre de la santé. ok ci suuf suuf parti si parti socialiste moom moom Ousmane Ngom. Mhm. nu mu tuddati euh, Serigne sa Diop mu mujj naa dem ci parti socialiste. mais Ablaye da bi ñu ko laajee dañ ne mais affaire bi train buy dem la train buy dem moom gaar bu mu egg am ñu wàcc am ñu yéeg mais coalition bi opposition bi mënuñu ànda parce que gars yi ñoo bëgg def ci kii bi ne bi dañu war a ànd mais bu ñu amee lu mat euh, quatre pôles wala trois pôles mais c'est bien ñi mën a ànd nañ ànd. man Ousmane euh, nu mu tëddee Khalifa Sall laa gën a wóolu kii parce que Khalifa Sall au moins am na gëm na ay éthique ak ak am na lu mu gëm parce que xalifa Sall dafa ànd ak Macky Sall jàppale ko ba mu falu ba élection yi ñëwee ne day dem day day day dafay dafay dafay nekk candidat demal boppam te loolu moo doon yoon parti socialiste ñoo ko sotoo njuut njaaj ko tappale bañ boole kaak kii ba nu mu euh, jaxase ko Khalifa kii Macky Sall avec la complicité des leaders du parti socialiste ñu nekk fële ànd ak mouvement bi. ñoom ñoo sacrifié xasi Khalifa Sall ñàggal ko Macky Sall mu rendi ko mais moom mi ngi gëm ay valeur man wax Khalifa Sall laa gën a wóolu. mais mais mais coalition bi est-ce que ñoom tim jaayuñ doole ñoom Khalifa Sall ak. Sonko man jaay doole man doole la ñu jaay. ñoom nee nañ bugaan ku nañ waxtaan. bugaan pendant neuf mois Khalifa Sall mi ngi dem di waxtaan ak ñoom mais pendant neuf yow ah ba ñu tëral li ñu tëral mais il faut am na loo xam ne bala ñu kii il faut ñu taxawal ko. ñoom nee couleur yi il faut ñu soppi ko bugaan couleur yi. xam nga ne ko waxi caaxaan la moom dafa am leneen loo xamante ne moom lay moom lay def daf bu fa nekkoon perturbateur la da doon danoon a jaxase nii moo gën na demal boppam am na coalition na dem coalition boobu lan moo ci ne duñ jox gëm gëm sa bopp lañ wax entouré des autres partis ak mouvement kon moom li muy doon li muy bañ fële moom lu tax mu digga def moom moom coalition gëm sa bopp la wax gis nga kii xoolal dafa am leneen lu mu war a régler moom ak Macky Sall moo tax xamoon nañ ko ñëpp kenn wulu ko woon te xamoon nañ ne benn tànk benn tànk la dugal benn tànk baa nga ci biti benn tànk ba nag bi nekkoon ci biir fekk na bi ci biti alhamdulilah mais 23 euh, euh, parti ak mouvement ñu am ci ñu nekk ci ñu def coalition mel na mu bëggaan ngay génn ñu bëgg ko def toole mel ni coalition ba dafa tas coalition ba tasul ay problème kenn mënu ko mënta ñàkk ci coalition parce que ambition yi moo bari te di ngeen déggaat yeneen problème mais c'est normal c'est la force normale des choses mais cëppaandaw jë nañu juboo sur l'essentiel mooy li nga xamante ne mooy intérêt Sénégal ñu fexee génne Sénégal ci guuti gi comme ni ñu ko waxee tinki Sénégal mais maintenant boo xam ne gisoo sa bopp mais demal créer sa coalition et puis la vie continue mais c'est normal pourquoi ñuy bëgg a def gi mais coalition bële bi deux de deux mille dix-sept avec les les élections là di di di législatives mais kan moo ko yàq ku dul Omar Sarr Omar Sarr moo ko yàq parce que boobu temps mi ngi doon gis ak Macky Sall laa laa pour ana mu tey. te moom bokkoon na ci ñi ñu audité woon ñi nga xam ne nañ leen bokkoon ci pet vingt cinq personnes yi nga xamante ne waroon na leen a waroon na leen a woo. mais mais Bougane du pion ndax dañoo deux mille dix huit deux mille neuf waaye pas confiance à lui. parce que moom am na épée loo xamante ne war ko ko topp ci kanam nii la ma def il travaille pour Macky nii mu def nii moo gën na dem ca biti bu fekkee wëlu na boppam na dem as def ci affaire audit yi dinaa wax ne dañuy auditer xaw ma sept cent quelques milliards pour l'inondation yi mais loolu c' est de la poudre aux ñaata audit la fi inspection d'état def IGE ARMP OFNAC ñaata audite la ñu def Macky Sall ne am na yoo xam naa ci def bi sama COUD ah. Hmm. Omar Cheikh Tidiane Anne mi nekk COUD du lu OFNAC lu mu ko incriminer nañ ko ba ne kii waratuñu ko wax benn responsabilité mu teggi loolu yëpp dem def ko mu ne ma defal ko promotion. kon lii bu ko waxee man gëwuma ko c'est de la poudre aux yeux ba mu fi toogee ba léegi gaa yaa ngi ñuun jaay ka tappale di sàcc suñu alal te mu société kenn au moins sax Ablaye Wade mën nga nay wax ne ne ah am na koo xamante ne te kii na ko mu waajooju jóob mais moom bi fi nekkee ba léegi gaa yi ñuy sàcc ba mu leen hmm. defal ay promotion mu société kenn moom daal li mu yàkkamti mooy opposition bi hmm. opposition bi daal yàkkamti na sawaay ku ne ci nangam ba mu bëgg ba dal sa kaw d'accord jël institution yeeg yëpp dal sa kaw. d'accord Diop. yaa ngi dégg problème passeport yi fi ak député yi ñaar ji député yi yu benn boo ko yaakaar. Mhm. del dégg du mu jël. d'accord jërëjëf ñoo ngi jéggalu. coalition bi man dama gënoon mooy ñu àndoon vraiment loolu laa bëggoon mais comme am ah dama si ñëw jàll jàll jàll jàmm rek bu jàllee les gens toog ay leçons. parce que bu mhm. xasee ba jàll les gens vont s'asseoir rek tirer ay leçons nag. Mhm. waaw maanaam mu yee leen ba élection député ñu mën a ànd nag. dëgg la waaw li ci des mooy euh, affaire yi inondation yi. waaw Macky Sall 2012 plan décennal la waxoon décennal décennal ba milliards dugg nañ te te innovation jógu fi jógu fi. Mhm. ba 2022 année prochaine la. Mhm. kon kay ñoom seen seen gestion baaxul ay auditeurs ay inspection générale ak yëpp ay ay wax ko daanu seerat la li wax li dëgg te li dëgg te dëgg mooy régime bi géré Sénégal teg xaalis bi si yoon dugg xaalis bi fa war a dugg de manière transparente du bii il faut beneen rek. Mhm. loolu laa gëm il faut rek beneen. parce que ñi seen doxalin boobu ak léegi dara jubu si képp ku ñu fi jàppoon audit a ah, nag ah waa ñu nekkoon service des mines Louga ay promotion lañ leen defal ah mais beneen rek moom moo mën a teg révision il faut beneen loolu daal laa gis noonu. Hmm. incha allah jërëjëf. maa ngi leen di nuyu ñuy déglu rajo rajo bi yëpp mbéykat moomu jéem hmm. Diop maanaam ah, eh, say dama ni man euh, <laughs> euh, li ma waxoon ci laa nekk ba léegi contre ma mu am quatre grands pôles de l'opposition day tax carte gi leer xam nga fi mu nekk nii moom mën a mën a mën a euh, jarul coow lu bëri nañ dem ci local yi ku ci ne dem ak sa coalition. Mhm. voilà résultat yi bu génnee ku ci ne di nga xam sa bopp su ko defee nag législative yi foofu la foofu lay yombee. Mhm. waaw foofu lay yombee li ma waxoon rek moo ci ne coalition yombul même benn parti. pour def liste yombul. Mhm. xam nga yaay ngi dégg soldat naan la euh, PDS xaw ma la nag lan bu ñu investir diw diw diw. donc mhm. ce serait pas mal nit ki ba mu am plusieurs choix. Mhm. parce que jour bu ñu tegoon PDS koo xam ne moom neexu ko te bëggul euh, voteel euh, Benno Bokk Yaakaar. su boobaa xëy na mën na voteel Bamba xam na li ma la wax. nit ñi il faut que ñu am un choix sinon ñu ci bëri dañuy toog duñu voté parce que dañu naan fekkee ñaar ñii la rek bëgguma voteel kii que kii pour man war njëkkoon investir à ma du ma voté le pouvoir en place damay toog te lool moo mën a ñàkk il faut que nit ñi dem voté ji. Mhm. voilà euh, li Diop wax aussi am naa ci. vraiment nit dañ koy waxal ji ko man Khalifa Sall li ma gis ci moom mooy nit ku dëggu la ku gëm boppam la euh, et que en 2014 wax dëgg yàlla gagné ci la gënoon jafe mais 16 communes yi la la la rafle nangu ko ci benn bokk yaakaar te boobu deux ans lañ def pouvoir. moo tax suñ si toogee naan bennoo moo gën a yàgg yooyu waxin caaxaan la même journaliste sax léegi ñu ngi koy répété. Khalifa mhm. génn na ci Bamba Dièye génn ci gàkku parti yëpp xar na deux parties ñeneen ñi dem gàkku yi continue c'est le tour boobu la ñu garder rek en l'état ça ça fait quoi mëppal te ne muut kaay ñu jox la di la sédd chaque mois tant de millions nga noppi ça vraiment loolu du du royu kaay bu nga ay longévité bi li ci am solo mooy longévité bi am lu mu jëriñ askan wi te gisuñu lu mu leen jariñ au contraire li ñu yàqal mooy lépp mais gars daal ku ci nee na demal sa bopp wax ju bëri di jaru ko quoi je veux dire. Mm-hmm. voilà jéem a décrédibiliser nit ñi ak yooyu jaru ko ku woon sa bopp demal. waaw mm-hmm. yoon waaye noonu et bu résultat yi génnee ku ne di nga xam sa bopp. làmb jaa ngi noonu laa ko kar rek ah. ma làmb jaa ngi noonu daal. ah oui <laughs> la man loolu laa gëm man loolu laa gëm ku wóolu sa bopp da ngay dem. Mm-hmm. waaw jeex na et puis coalition bu ci gën a dëgër et puis législative bi ci lay gën a yomb daal. su nekk boo ñëwee toog bi nga xam ne coalition nga war a jël wala chaise nga war a jël wala tabouret. bennoo tamit ñoo ngi waajal de bennoo tamit ñoo ngi waaj ñoom tim ah, waaw coalition yi day dégg naa ñu naan am Bogaan andi Bogaan am Khalifa andi Sonko. Mhm. waaye coalition yi. ah Bougane bu andul ak coalition bee parce que nag coalition tam da ngeen a war a tey ji digg table bi ngeen waxtaane ko waaye bu ngeen ko bëggee ngar naajoo rek daal di koy wéy bël bëlisee ko du sotti mm-hmm. foofu moom ma digal Bougane mooy en tant que grand marabout mm. coalition bi nga xamante ci moom la PDS di def ak bokk gis bu Pape Diop na bokk ci boobu foofu la wàllam ne mm. foofu la ciram ne te foofu lañ koy xaar Hmm. ndax ñett ñooñu bu ñu foroo waxuma la Sénégal waaye adduna bi sax mën nañ koo gañe léegi fa mu nekkoon lu tax mu war faa jóge ah fa mu nekkoon nag xam nga bee tax ma ne ji parce que euh, Macky Sall dafa jaale ji woon Khalifa Sall xamuñu lu ñu waxtaane mën nañ ñaa ànd sa waaye yóbbu leen yóbbu ci Macky loolu la ciy daw loolu ak Sénégal yëpp keroog ba mu toogee Macky Sall di waxtaan sa waaye keroog la xel yëpp ñaaw mais Khalifa kay xanaa mën naa yóbbu ku ne ci Macky Sall ba mu des yóbbu fa Ousmane ko dama ni Macky ma yow xanaa yow ka moom Macky Sall yi doon politicien Abdoulaye da ko jàngal daa jaale joon Khalifa Sall da ko jaale joon a ah, Ousmane Sonko day guddi yi moom bu demoon ci Macky Sall fa mu jaar ba yóbbu ko wala Amar Sarr fa mu jaar ba yóbbu ko ma ni CDS bokk ñetti wasi cin la ñu <laughs> taxaw leen mu dëgër ngi d' accord jërë man la Anna Mendy. Anna ça va. waaw ça bi bien maa lay nuyu di waa nuyu waa réew affaire yëpp. moom ñoo ngi lay fay maa ngi nuyu itam soldat sama càmmiñ boobu. Mhm. yaa ngi laajte ba xam ndax AFP laa maa ngi AFP ba <laughs> soo gisee may défendre ci coalition bi laa bokk. kon war naa cee mën a wax du noonu. dëgg la loolu dëgg la. waaw loolu moo tax mais maa ngi AFP ba léegi ñu bari dañ defe ne APR laa bokk. Mhm. mais benn la maa ngi AFP. waaw mais ñun ñëpp benn la ñu. bul transhumé nag dem waaw. quoi seen coalition bi moor nee la dafa juddu rek dee ñooñu hmm. ñu tuddoon ne dañoo bokkoon ca coalition ba ba mu yàgg ñu ne bokkaatuñu ca hmm. xam nañu li tax ñoom ñu génn ci Sénégal hmm. lu fi baax ci indépendance ba tey jii bokk nañ ko kon nag du ñu ànd ak ci luy taal réew mi mbaa luy rey sénégalais yi maire wax ay ay critères xam nañ ko mais par rapport ak la Senghor yoroon muy trois millions d'habitants boo ko ak population Sénégal léegi daa mel ni nga boole juróom benn réew. ko mhm. benn président. nit ñi yokku nañu trop. Mhm. mais suuf si yokkul réew bu demee réew bu demee noonu xam-xam rek moo koy mën a yor. waaye du wax kese. Mhm. Macky sàll mii jàmbaar bu mag a mag a mag a mag kii bu ñu xoolee ba mu rawuñ dinañu am leneen lu ñuy xew a jaax li ma jaaxal ku jaay sa xel sa xam-xam réew Ablaye Wade ci système bi la Khalifa Sall ci système bi la kuy sabote wax waxeet waroo def wax waxeet. kenn ku ne bëgg a jiite. kenn bëggul sa morom jiitu la ku jiitu ñu pàdd la Macky Sall dong moo leen jaaxal te noonu lay demee ba 2024. maa ngi ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal président Macky Sall li mu sumb ci projet bi yàlla jàppale ko mu eggali ko si jàmm ak salaam nuyu naa ñëpp jërëjëf Abdou Khadre merci. xam nga taayee paase waxoon naa la ne la ne la euh, Bougane Gueye Dany. waaw man su ma mën dogal ci coalition boobu du du ci bokk. moo waxoon naa la ko. waaw man dama ko xam. moom daal na dem ngalawam gaa yi ñee ñoo gëm seen bopp ah. ah. ñi fa ne. waaw ñoo gëm nañ seen bopp mais Bougane Gueye yi buzz la bëgg buzz moom surtout sax ci coalition ba ci génn. parce que hmm. jàpp naa ne xam naa ne bu gën a yeewu Sénégal itam bariwul. ñun xam na nit bu baax a baax. ah mais moom nooteel la gis nooteel daa gis ñun ñu bëgg a noote nootal nooteel foofu. nooteel kenn noot moom waxu ma man de dama dégg dégg naa li mu njëkkoon wax. waxu couleur la wax couleur. waa comme xale bu ndaw. nee na démocratie amul foofu ba pare kumba mu am ndey ak naan bii sàmm bii njuur. waaw mu ñëwaat leen tam dëmm neen ay dëmm lañ dañuy xaw ma lan. waaw waxaat ne ne ñoom dictateur lañu comme Macky Sall ni muy xeexee Macky Sall ñoom loo loolu la ñuy def ñoom kon kay léegi na commencé di leen xeex comme nee na moom dictateur yi bi muy xeex ci Macky ñooñu loolu la ñuy def. kon kay ñee ay kon ñee da leen di opposé wu léegi loolu won na kooku noonu gëmul sax li ñuy wax. man gëm mosuma koo gëm ni sénégalais yi nag ASM kese lañ soxla te ñu ngi koy lekk ndànk-ndànk di ko jey mais man lii sax baax na parce que bu demee élection moom dinañ xam kan mooy Bougane Gueye Dany parce que cëlli cëlli mi yor sa xaalis yor say nit ñi da say kaat kaat di wër yor say garde corps di wër ci dëkk bi ñu laan la yaafi ne yaafi ne dafa yomb parce que gars yi moom koo jox cinq mille wala trois mille moom mu topp la élection yi di ñëw nag dinañ xam fan lam baag ndax ndax ndar ga mu dëkk lam baag wala Dakar bii mu yorob telem fi lambaas wala fan lambaas nañ xam moom kan mooy Bougane Gueye Dany Ousmane Sonko nag moom du moromam wax naa ko tey suba du moromam du moppandom Ousmane Sonko wane nay preuve am wane na na diaspora bi moo fa teg tànk wane na na euh, Casamance mooy borom Ndakaaru bi am na fi wàll am na fi wàll jàpp naa ne ak yeneen ak yeneen yi mu mënul wax dëkk yu bëree bëri même Touba Mbacké Gueye man gis naa waa Pastef ñu ngi koy liggéey liggéey bu am solo gis kon kooku wane na boppam wane na ne moom nii moom képp kuy wax opposant ci dëkk bi boo nee benn di nga ne di nga ne Ousmane koy ñaar nga bañ ko ak nga bañ ko bëgg na damay dégg sax ñuy wax parti bu man parti bu mag jàpp naa ne am na gaa mais Macky Sall mii ba muy jël ndam li eh, ci Abdoulaye Wade dé di nëw parti kuréel Abdoulaye Wade la mu ko waxoon ba mu dajeeg moom xaw ma ñaari tali xaw ma a Dakar daf ne daje naa ak benn waay bu yor ci oto ak quelques personnes mhm. kooku mooy xëjoog man réew mi dégg wax wax boobu Mm-hmm. te Macky Sall ba mu ba mu jël réew jàpp naa ne partenaire affaire boobu yàggul. kon mm-hmm. na ngeen bàyyi xel ñuy wax parti bu mag ak parti bu mag jàpp naa ne parti quelques personnes lañu rek ñi falaate mooy population bi nekk ci dëkk bi personne nañu lool jàpp naa ne avec coalition ou sans coalition Macky Sall bu tegee élection yi ci yoon incha allahu rabbi dina xam ne sénégalais yi moom génn nañ ci moom te doomu aadama mënul wax. wala ngay wala ngay yéeramtalu di wax ba wax lu gëm lu gëm lu koo xam ni Sénégal dañu koy gëm ba wateel ay maire wala ay ay législative wala présidentielle deux mille vingt quatre nit ñi moom jël nañ ci moom partout partout partout te du samay wax de. waxu waaw mais mais mais mais maaram mais maaram loolu ngeen di wax mais bu élection ñëwee ndax loolu 2019 doon nañuy wax. koy sàcc dañuy sàcc rek. du soo waaj a ñëw kuréel bu yàggul. élection yi Guinée yi mais mais seenu lay est ce que tamit du est ce que bu kenn voté mais est ce que yéen tamit est ce que ngeen naan sàcc sàcc non Macky moom tax yi génn jii yaa ma gën noo ko sàcc kan moo joxe résultat yi kan moo ko joxe lu mooy ministre am boobu premier ministre moom moo taxaw ci télé génn di onze heures et ne résultat yi cinquante pour cent la ñu am pendant ce temps yi bi ñu doon joxe résultat yi di jël ay PV dañ ko ay bu ay policier lañ ko yóbbu nan na bu kenn wax bàyyi leen waa ji mooy wax premier ministre fan lay joxe résultat résultat ma yaakaar ne moo koy joxe wala waa Cour constitutionnelle mais ñoom ñoo yore ko teg loolu moo lay wax ko ciy sàcc élection yi bu teg woon ci yoon wallahi wa tallaahi Macky Sall mu mënul premier tour benn benn opposant même taw sax ci opposant yi Macky Sall mënul gagné premier tour parce que population bi man dañoo génn ci Macky Sall bu yàggee wax ma laa nag jamono yi nga xam ne gi seer na njàng mi baaxul santé bi waxi noppi dara baaxul ci réew mi foofu nag la fépp. ça va. ça va alhamdulilah. xam nga li may wax juróom-ñeenti at man du nu dem. la ñu jëm. mais dañoo war a dem nag gannaaw Ndiaye. mais xam nga boo bëggee dem da ngay jug. Mhm. yàlla jàppale mu jeex. loolu rek la ñu tubaab bi waxee. surtout gis nga lii gars yi di wax nii xam nga problème bu Sénégal man. priorité bi xam nga mooy lan. mooy lan ñu fexe woon ba élection yi jaar yoon. jar ñu dem Nations Unies. OUA CEDEAO ñu joxe fichier bi comme ni ko Ablaye defe woon. loolu mooy xeex numéro beneen bi mooy xam nga yor sa télévision dina leader nga da ngay sa bopp. Bougane pour sans sans télévision qu'est-ce qu'il représente sur le plan politique rien mosoo dem benn élection mais il représente absolument rien gis nga moom son concurrent ku am xam-xam am xel xam ne Sonko mooy concurrent bi billaahi buñ leen boole woon ci Sénégal ñoom ñaar sur le plan intellectuel politique du ko jëm sax ci baaraam man du ma politique ah jili oui grand Ndiaye mosuma politique. Mhm. déglu ma rek. waaw mosuma nangu un homme politique ci sama biir bopp bii parce que boo waxee lii bu subaa nga wax la leen ma déggal Serigne Cheikh Tidiane Sy ne jullit du fen. bu mhm. fenee malaaka yi dañu xëm. mais du ma nangu loolu mais toujours mu wootee amee di nga dem sànni kenn pour améliorer la situation di pays man damay demande sax ñun luñ doon demee indépendance c'était pas c'était inutile. lu tax beneen bi mooy. lu tax mu inutile nga benn. non dem ele lu tax mu inutile waaw. mais suñuy jëf yaa ko gën a xam lu nit di doyee milliard te ñi koy am du ñuy commerçant du ñu am defee. da ngay nekk policier te loolu yàlla bu la jiitalee mais loolu mooy priorité suñu borom nit ñi ñoo fi nekk di wax yàlla buy wax fond lay waxee xam nga dossier dañu ànd la tribunal sax boo jaaxlee sax nañu indi dossier juge de fond dafa am tribunal juge de fond buñ la naxee naree nax ci ay naxas naxas mu wóor na la yaa yaa am dëgg yóbbul dossier bi ci juge de fond mu jeex. Mm-hmm. mais ñun li bëgg a def duñu avancé mettre inspection guddi inspection bëccëg mais jusqu'à quand y a aucun résultat gis nga PDS kenn gënu ko mais Ablaye Wade dafa dem ma gis ay leaderam ay borom alal yi am ci Ablaye Wade ñoom ñëpp tant qu'ils sont ils sont plus au lan moo tas PDS génération du concret nañu bañ a juum gis nga nu mu tuddati euh, Yékini mbër ba mu demee ba jeexal Balla Gaye dafa ñëw daan ko nit ñi nag gis nga duñu ay xar mën nañoo nekk ci parti mais du lu leader bi wax dañ koy topp ku nekk yaay dund li ngay xam yaa koy dundal sa bopp boo bëggee wate wateel fu la neex sa bopp nit ñi kenn moomul leen leader politique yi nañu def attention gis nga cette jeunesse là bii jeunesse bu leen Sonko rawee man gisatuma ci dara ndax dafa am benn problème bu ñu nit ñi dul xalaat ce gosse là ndimbalal yàlla mooy tax nga am âge bu ndaw boobu mu am nekk secrétaire d'administration nekk inspecteur des impôts et domaines ñu koy jox ay millions millions millions te kenn mosu ko ci jàpp laajal ñam xam-xam kooku ndimbalal yàlla la am mu neex mu naqari yàlla moo fi ne leneen néew fii gis nga ku jub yàlla ànd ak yow ku jubul yàlla du ànd ak yow d'accord nit ñi nag mm-hmm. dañuy ci tàng tàng bi gis nga analyse yi gars di def boo seetloo man damay seetlu beaucoup de journalistes dañuy jël yàlla teg ko fële moo tax olof dafa ni mhm. nit ak pexeem yàlla ak dogalam yàlla boo bëggee ci dara ci affaire am da ngay jubal ne ci yoonam wii boo ci newul doon jóg ci jafe-jafe lii maa la ko wax ba yowmal xiyaam nag mhm. lenn nag dama lay wax jili waaw lu ma xam la lu ma wóor la lu ma dundal sama bàyyi ma ko daan wax il a fait l'armée française dafa ma daan wax tubaab la yàlla jox àdduna nit ko ñuul li muy dundee daf koy rey moom loolu lu am significat ñun loolu la gëm li ci des ne ci yoonu yàlla wi ku liggéey bu retraité war ngaa sant yàlla toppatoo xale yii waaye leader politique bu tax naan ba ma amee milliard man li ci sama wàll boobu góor gee ko daan wax milliard boobu koŋ ci compte ci Sénégal as gor du ko am allahumma laqina ba'da firaq réew mi jërëjëf